nee na bu fekkee ne ragal nañ ne bu ñëpp àndee di julli yéefar yi gaaw song leen gaañ leen kon bu fekkee ne mbooloo mote na ko dañ koy def ñaari xaaj ilimaan bàyyi benn xaaj ba ñu jàkkaarloog noonu di xeex ak ñoom benn xaaj bi nag mu dikk ànd ak moom mu jiite leen benn rakka bu dee tukki bi wax na nga xam ne kon yépp dafa soppiku ñaar rakk ba mu des timis ndax dafa wax fi safar ci tukki dafa jublu bu ñu dee wàññi julli yi moo ko tax di wax xam ne su boobaa la mat a ñeent ci julli yi soppiku na ñaar su boobaa day daal di jiite xaaj bu njëkk bi benn rakk dong taxaw nag moom bàyyi leen ñu julliwaat benn rakk muy ñaar suñ jullee ñaar rakk rek daal di taayu sëlmal dem xeex yi ña nekkan foofee nag ñëw ilimaan jiite leen benn rakk bi ko dese woon ba tax mun naa su may at yi topp dana dikk asxaabuhum seeni moroom fa yuhrimoon te ñu armal xalfal imaam ci gannaaw ilimaan fa yu salli te muy julli bisim ak ñoom ar rakxata rakk ba attaaniyata bay aji ñaareel tumma yetta shahri topp dana taaye wa yu sallim te muy sëlmal tumma yaqdoona topp danañu fay ar rakxata rakk ba allëtti ba nga xam ne faatatum rawoon na leen wa yan sarifoona te ñu wëlbati ko nee na xam nga ilimaan ba mu leen jiitee benn rakk dafa taxaw rek moom bàyyi leen na ñoom ñu gaaw julli rakkam ñaareel ba daal taayi sëlmal dem xeexi ña fa desoon nag ñëw mu jiite leen rakkab ñaareelam su leen jiitee rakkab ñaareelam moom day taayi sëlmal bàyyi leen nag ñu fay rakk bu njëkk ba nga xam ne moom lañu fekkiwutoon noonu daal lu yomb la te jàppandi te leer bu baax a baax hakaza niki ni jëf xam lay def fii salaatil faraidi ci julli farata yi kulliha boole seen ilal maxariba ndara timis fa indoo naka moom yu sël yi dana julli bi taayifati ak kuréel ba al ula ba jëkk rak xatay ni ñaari rakka wa bi saaniyati mu jullee ak kuréelu ñaareel ba rakk xatan benn rakka xam nga ndegam daa xam ne ci tukki lañ nekk dañuy wàññi julli yi kon julli yëpp soppiku na ñaar ba mu des timis moo tax noonu lay def ci mboolem julli yi ba mu des timis timis moom mbooloo moom njëkk a jiite te leen di jiite ñaari rakka bàyyi leen ñu fay benn rakka ñetteel ba daal di taayu sëlmal dem xeex yi ñooñu ñëw nag mu jiite leen benn rakka bu leen jiitee benn rakka nag léegi moom taayu sëlmal bàyyi leen ñu fay ñaari rakka ñu njëkk ñaar wa insalla ndem julli na bihim ak ñoom fil xadari ci teew li shiddati xaw fi ngir taru ragal salla kon mu julli fi duhur ci tisbaar wal xasri ak takkusaan wal xishaay ak gee bi kulli taaifatin ci bépp kuréel rakxatee ni ñaari rakka wali kulli salaat ñel na gépp julli adaanu nodd wa iqaamatin ak liqaam nee na bu fekkee xadar la maanaam nekkuñ ci tukki nga xam ne julli ba toon ñeent mat ñeent ba tey kon ba tey neen day xaaj rek julli ba toon ñeent def ko ñaari xaaj suuf su boobu du soppiku ndax ñaar la woon rek day jiite kuréel bi ci nekk benn rakka waaye julli yi matoon ñeent moom te mat ñeent ndax tukki wuñ day jiite kuréel ba mu njëkk woo ñaari rakka bàyyi leen julliwaat ñaar rakka teg ca taayu sëlmal dem xeex yi mu daal di woo kuréelu ñaareel ba ñu ñëw bu jiite leen ñaar rakka ñu ko dese woon moom taayu sëlmal bàyyi leen ñu fay ñaari rakka bu dee timis moom du soppiku ñett rakka nam ci waxoon rek kuréel bu njëkk ba day jiite ñaari rakka kuréel bu mujj ba mu jiite leen benn rakka du tee nag julli gu ne ñu noddal ko li xaamal ko wa itashtat da ndeem tar na alxawf ragal ka xan daalika walis loolee sallaw ñu julli wax daana mbir mu ñu ay benn benn te xaddari taaxatihim ci kem seen kàttan te xaddari taaxatihim ci kem seen kàttan mushaatan mbir mu ñu way dox ak tànk aw rukbaanan wala ñu di way war maashiina mbir mu ñu way dox ndànk aw saaxiina wala ñu di way daw mustaqbilil xiblati mbir mu ñu way jublu xibla wa xayra mustaqbiliha ak mbir moom duñu way jublu xibla daa wax ne bu fekkee xeex bi dafa méttee métti noonu yi baree bari ba nga xam ne ni ñu wax ni sax mënu su koo nosee julli gi ni ñu wax ni xaju fa buñ ko defee rek gaañu buñ dee jéem a xaaj mbooloom ñaari xaaj di ko nosee julli gi ni ñu waxee rek du fa xaj su boobaa kon dañuy bàyyi rek ñu julli kenn ku ne nag xam nga ne julli jot na rek noo mën a jullee nga jullee ko booy julli dox ak nga julli war ñoo yemoo booy dox ndànk ak booy daw ñoo yemoo booy jubloo xibla ak booy jublul xibla ñoo yemoo man ngay julli sax ñu lay ñu lay dóor ngay fayu yëpp rek moom daal dañoo fonk julli lool ba duñ may duñ leen may sax nga mbir mi metti metti ñu wéy ci xeex ba te bàyyi julli ga déedéet ndegam julli nekk na seen xel rek kenn ku nekk noo mën a jullee jullee ko baabu li ab buntu la fii salaatil iidayni ci julli yaari xiid yi wa takbiri ak kabar ga ay yaama minan ci fani minan wa salaatul iidayni julli yaari xiid yi sunnatu sunna la waajibatu surituñu feddali yaxruju dana génn laxaa ngir moom al imaam ilimaan ba wa naasu ak nit ña daxwatan ci ab yor yor di xadriment ci kem loo xam ne isa wasala ndem àgg na xaana teew asalaatu julli ga nee na julli yaari xiit yi kenn ku ci nekk sunna su dëgër la waxtoom nag mi ngi tàmbalee ci bu naafila daganee rek ba tisbaar diggante boobu mooy waxtoom iliman mën naa bàyyi ba yor yor nag bàyyi ba mbooloo ma teew nga xam ne bu àggee rek ñu mën a daal taxawal julli ga fa saasa saasa kenn du ko li xaamal taxawal gi ma ci julli rek da julli fa saasu di kenn du ko li xaamal moom ba tax ma naa walay sa fii xaadit muy nekk ci moom azaanul nodd wala iqaamatun du ceegeen li xaam amul nodd amul li xaam nodd li xaam moom julli farata moo koy am fa yu salli dana julli bihim ak ñoom rak xatay ni ñaari rakka yaqraw dana jàng fii himaa ci ñoom ñaar jahran ci biral bi umil qur'aani ci fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la ak sabbih isma rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha ak wa shamsi wa duhaha wa nahwihima ak lu mel ne ñoom ñaar wala nga ne ak lu nuróog ñoom ñaar wa yukabiru tamit kàbbar fil ula ci rakka bu njëkk sabahan juróom-ñaari kàbbar xablal xiraati njëkk jàng ga yaxmut bi dana wàññiwaale fii haa ci ñoom takbiratal ihraami kàbbaru armal ga wa fi saaniyat ci rakkab ñaareel xamsa takbiraat juróomi kàbbar lay kàbbar laa yaxuddu du wàññiwaale fii haa ci ñoom takbiratal xiyaami kàbbaru jóg ba nee na julli correcte ki ñooyema bu ci nekk ñaar rakk lay doon te it des leen di biral waaye nag balaa tàmbalee jàng ci ka ci rakk bu njëkk bi day kàbbar juróom-ñaari yoon te wàññiwaale ci ba mu tàmbalee muy bu armal bu ko defee nag bu taxawee ci rakkam ñaareel ba na wax allahu akbar juróomi yoon waaye du ca wàññiwaale kàbbar bu mu jógaale kon boo boo ca wàññiwaale boobu juróom-benn lay doon maanaam xam nga bu jógee ci rakk bu njëkk bi jëm ci bu ñaareel bi dana wax allahu akbar day bañ a wàññiwaale boobu nag tegaat yeneen juróom nag te itam saarum jàng rek mu baax waaye rakk bu njëkk gannaaw fatiha sopp nañ ca sabbi isma rabbika rakk bu ñaareel gannaaw fatiha wa shamsi wa duhaaha waaye nag bu jàng yeneen ba tey baax na wa fii kulli rakkaati nekk na ci bépp rakka sajdataani ñaari sujjoot rakk bu ne la nga rakk bu ne daal ñaari sujjoot lay am rek noonu nga xam noonu nga miine woon ab rakk bu ne mu am ñaari sujjoot loolu dara sotti ko ci summa yetta shuhru topp dana taaye wayu sallimu tam yu salmal mu taaye salmal su ma yor xaar topp mu yéeg al min bara min bar ba wa yaxtubu tamit xutba wa yajlis tamit toog fi awali xutbati yi ci njëlbéenu xutbaam ba wa wasatiha ak ci diggam ba su ma yan sarifu topp dana walbatiko dañoo sopp balaa tàmbali xutba bi mu toog bu xutbaa xutba bu njëkk bi ndax ñaar lay doon walbatiku toogaat dellu jógaataat nag xutba xutba bu ñaareel bi bu xutbaa bu noppi rek julli ji noppi na xutba yi noppi na lépp noppi na mooy yustahabu def na sopp an yarjiha mu delloo min tariixin ci aw yoon xëyri tariix yi wul yoon wa allati yoo nga xam ne ataa dikkee woon na min haa ca moom te wan naa su nit ñi it kazalika naka noonee leen wax ni sopp nañ ci limaan yoon moom awoon ba muy julli ci korité mbaa tabaski bu wàññi ko mu aw ci weneen mu ne waaye loolu du moom rek nit ñi itam noonu sopp nañ kenn ku ci ne yoon wa nga awoon ba ngay dem boo wàññi ko bay ñëw awaat ci weneen wa in kaana dem nekk na fil adha ci tabaski xaraja mu génn bi udhiyatihi ànd ak tabaski ma ilal musalla ba ci jullikaay ba ba dabaha te mu rendi ko aw naxaraha wala mu loj ko li ya'lamu ngir na yëg daalika loolee annaasu nit ña fa yadbaxoo na ba ñu rendi bax doxoo ci gannaawam daa wax ne bu fekkee tabaski la la gën mooy na yóbbaale am tabaski moom ilimaan ba ci jullikaay ba mu rende ko foofu bu dee lu ñu rendi mbaa mu loj ko bu dee lu ñu loj ndax nit ñi xam ne ilimaan def na ba noppi bu ñu demee mën a def su fekkee ilimaan génnewaaliwul am tabaskiyam nag ci jullikaay ba kenn ku nekk boo delloo sa kër da ngay tolloole ba jàpp ne fii mu nekk daal ilimaan war naa rendi ba noppi léegi nag boo tolloolee ne war naa rendi rek nga daal di rendi gannaaw ba nag bu wóoree ne yaa ko jiitu mooy yaa ko njëkk rendi du tee nga baax le tolloole rek moo la ja war wala yadkur na tudd allah yàlla fi xuruji yi ci génnam ga min bayti yi tukkee ci néegam fil fitri ci korité wala adha ak tabaski jahran ci biral xataa ya atee ba dikkal al musalla jullikaay ba al imaam ilimaan ba wan naa su nit ñi itam kadalika naka noonee lañ di dañoo taamu boo dee génn di julli ji korité mbaa tabaski ngay kàbbar ci kaw te di ko yëkkati bu baax a baax ilimaan loolu ñu sopp ci moom nit ñi itam kenn ku ci ne loolu sopp nañ ko ci yow fa isaa daxale ndéem dugg na alimaam ilimaan ba li salaati jëm ci julli ga xataxoo ñu dagg daalika loolee maanaam mbooloo mi koo ci xam ne yaa ngi wax allahu akbar ba agsi ci jàkk ja itam da ngay wéy rek di wax allahu akbar fa ñu wutee kay mooy bu ilimaan ak see ci dalul di jublu ci julli ga ndax ka doon kàbbar day wéy rek di kàbbar ba tey ba keroog muy taxawal julli ga maanaam ba ba ñuy tàmbali julli ga laa bëgg a wax wala kay bu ilimaan ñëwee rek moom day daal di bàyyi fa saasa doonte sax tàmbaleegu te julli daa mel ni nag la gën a xéewale ci zahir moom mooy bu ilimaan ñëwee itam ñuy kàbbar rek ba bu muy tàmbali julli ga wayu kabbiroon dinañu kàbbar bi takbiril imaam yi ci kàbbaru ilimaan ba fii xutbati yi ca xutbaam ba wayun sitoon te ñu déglu la wëññal ko fii maal si waa zalika ci lu dul loolee daa wax ne ilimaan su dee xutba balaa tàmbalee xutba bi day faral di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar di ko wax ak baamoo ko baamuwaat su àggalee benn xutba bala moo tàmbali ba ñaareel ba itam dana di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ak nu mu ko mën di waxee daal su boobaa nag daañu sopp maamoom yi itam ñu di ko wax ci suuf ñoom it di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar di ko wax ci suuf nag te bañ koy yëkkati su ilimaan waxee leneen nag lu bokkut ak kabar yi ñu déglu rek la muy wax te bañ a wax dara ñoom fa in kaanat dem nekk na ñoom fan ya ay yaaman naxari di bisu laj ga fal yu kabir na kàbbar ad naa su nit ñi du bu la salawaat ci gannaaw julli min salaati zuhri tàmbalee julli tisbaar min yow mi naxari ci bisu tabaski ba ila salaati subahi ba julli suba ina yow mi ci bis ba arraabi bay aji ñeenteel min hu tàmbalee ci moom waxoote moom aaxiru ay yaami mi nan mu aji mujj ci fani mi nan yu kabiru day kàbbar ida salla ndéem julli na asubha suba su ma yàqtaxu topp dana dagg nee na bu fekkee fan yooyu day fani jamonoy tabaski am kàbbar ñu digal ñu sopp ku ko def saa yoo jullee julli farata gu ne day tàmbalee bis bi nga xam ne mooy bisu tabaski bi mel ne bu fekkee tey ji ñuy jànge muy bisu gaawu muy bisu tabaski bi boo xasee sëlmal tisbaar rek dañoo sopp nga def kàbbar yi ñu la wax boo jullee te geneen julli itam dellu defaataat kàbbar yi di wàññi nag boo tàmbalee gaawu dibéer altine talaata talaata mooy ñeenteel bi ci boo tàmbalee ci gaaw talaata yooyu nag ba jullee suba ba def kàbbar yi foofa nga koy daggee nag ba déwénati doo ko defaatati wa takbiru kàbbar ga dubura salawaat ci gannaaw julliye mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar muy ñett wa in jamaxa ndeem boole na maxa takbiri ànd ak kàbbar ga tahlilan wax laa ilaha illallah wa tahmidan ak wax alhamdulillah fa xasanun kon aj rafet la mooy kon lu ñu sopp la yaqul day wax insha ndim bëgg na zalika loolee ne allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu kaabar yi mu la waxoon léegi moom xanaa fàtte rek moo ci yomb waaye jëfewut ndax mën nga rek faratu boo sëlmal ba ngaa tasab rek daal di wax allahu akbar ñett yoon mu daal di baax ba tey nag boo mënee boole kaabar yi ak laa ilaha illa allah ak alhamdulillah ba tey def nga lu rafet rafet lu baax a baax su boobaa ni nga koy defee mooy da ngay wax ñaari allahu akbar teg ca laa ilaha illa allah waxaat ñaari allahu akbar yoo xam ne ànd ak waaw xam ne ñaari allahu akbar yi mujj da nga ci boole wallahu akbaru allahu akbaru ñaari njëkk yi amuñu woon waaw ci ci njëlbeenu allahu ja waaye yu mujj yi nga xam ne mooy ànd ak walillahi alhamdu da nga ci boole waaw boo ne allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah ngay waxaat wallahu akbaru allahu akbaru walillahi alhamdu wa xadru ya netleef na xam malik njëli ci malik xaasa lii wal awolu ak aji jëkk ja wal kullu te kenn ku ci ne waa sun aji dagan la ñaari net li yëpp wax allahu akbar ñett yoon ak boole ji laa ilaha illallah ak alhamdulillah lu ci nekk jëlee nañ ko ci maali te loo ci def rek mu baax wal ayaamu bis ya al maalumaat ya di ñu xam ayaamu naxri mooy bisi loj ga ak salaasat ya di yet wal ayaamu bis ya al maadodaat ya di ñu wàññi ayaamu minan mooy fani minan waxiyee ñoom salaasatu ayaami ñetti fan lañu baax da yow mi naxari ci gannaaw bi su tabaski ba daa am lu ñuy tuddee al ayaam al maalumaat am lu ñuy tuddee al ayyaam al maadodaat te ñu duggante maalumaat moom mi ngi tàmbalee bisu tabaski bi ak ñaari ci topp ñetti fan yi nga xam ne boo ci tabaski rek am nga tabaski dañ tuddee maalumaat maadodaat nag moom da ngay génn bisu tabaski bi tegaat ca ñetti fan waaw bu ñu newoon tey ji li tabaski tey ji bokkul ci maadodaat suba la maadodaat di tàmbali ba man ñett maalumaat nag moom bu newoon tey la tabaski kon tey lay tàmbali nga teg ñaari yi topp wal xuslu cangaay la li na xiid yi ni ñeel yaari xiid ya xasanun aj rafet la walay sa bilaasi min du aj war waaye aj rafet duñu sopp la ci jublu bu ne xasan rek mustahab la ci jublu daa bëgg wax ne sopp nañu korite ak tabaski nga sangu ca cangaay lu mel ne nit ñi sangoo ci janaaba melow janaaba yi ñoo ko ñoo bokk melowa ñoo bokk nañu koy defee doonte sax nekkoo mu kàllaf nër laa julli jitam rek du tee ñu sopp nga def cangaay loolu la wa yustahabu def na sopp fii maa ci ñoom ñaar ab tii bu gët wala xasan ak aji rafet mi ne siyaa bi ci ay yére maanaam sopp nañ nga xeeñ ci xet gu neex lat ko lañ ak sol ci yére yi rafet mu ci korite tabaski moom nag moom lu gën a rafet rek moo gën bu doon ajjuma moom lu gën a weex mooy gën waaye bu dee fii ci korite tabaski moom lu gën a rafet rek mooy gën nee nañu nag bisu korite mbaa tabaski soo ko mënee moom na nga sol yére yu baax a baax te xeeñu lat ko lañ nga mën koo noppi nag wan gannaaw àdduna tax nga bàyyi ko nee nañu taamu wuñu ko bëgg nañ daal moom nga def ko te ñu wax naa wa man taraka dhalika raghabatan anhu fa huwa mubtadi'un ku ko defut day jàpp ne dangaa topp bidaa sopp nañu bu dee korite itam bala ngaa xëy di julli ji nga mos dara wane ne wari nga la ci gën nag mooy mu nekk ay tàndarma te tóol boole ca bu tàndarma jafee nag baax na leneen loo jëfandikoo rek baax na ba tey sopp nañ guddi korité ak guddi tabaski maanaam bu ñu nee subal korité mbaa subal tabaski guddi googee nga dundal ko bu baax a baax loo mën ci sikkar ak julli ndax la addis ba wax ne man ahya laylatan iidi wa laylatan nisfi min shaaban lam yamut qalbuhu yawma tamuutul quluubu ku dundal guddik xiit mbaa guddik nisfu shaaban sa xol du dee ci bés ba xol yey dee ba tey am na addis bu ne man ahya al layaaliya al arbaa wajabat lahul jannatu te nee nañu wahiya laylatul jumuati wa laylatu xarafata wa laylatul fitri wa laylatul naxri addis ba dane yenti guddi yi ku leen dundal yàlla warlul la ajjana guddik ajjuma guddik bisu arafa guddik korite maanaam bu ñu nee subal korite ak guddik tabaski mooy bu ñu nee subal tabaski ba tey li ma waxal ne guddik arafa mooy bu ñu nee guddi gi lañu taxaw arafa rek bés di fukkeel yenti guddi yi nee na ku ko dundal yàlla warlu la ajjana léegi ñu ne ku dundal guddik xiit ak guddik nisfu shahbaan sa xol du dee nañ ko firee mooy wa maana lam yamut qalbuhu lam yatahayyar hinda nazahi wala ala alqiyamati wa qila lam yamut fi hubbi dunya wal ihya'u yahsulu bi dhikri wa salati walaw fi mu'zami al-layli buñ ne xolam du dee rek mooy buñ deen wàcc ruuxam du gëlëm du jaaxle mbaa nga ne bu bis pencee du gëlëm du jaaxle ba tey am nañu ne xolam du dee ci bëgg àdduna bëgg àdduna mën naa rey xol waaye ko def loolu sa xol du dee ci bëgg àdduna dundal gën ak moom ci guddi yi boo ko déggee rek mooy ni ma ko waxee woon léegi tudd yàlla ak julli te boo ko defee la ëpp ci guddi ga sax mel na ne dundal nga lépp lépp teewul nag nga dundal lépp lépp lépp lépp moom moo lay gën a ëppale tuyaaba moo lay ëppale lu baax
baabun li ab bunt la fii salaatil xusuuf ci jullit muur xusuuf mooy muuru jant ak muuru weer muuru jant moom maase nañ ci ne sunna su dëgër la jullit muuru weer nag moom am nañu wax ne sunna la am nañu wax lu ñu sopp la waaye sopp gaa gën a wóor ca bu dee ci muuru weer waaye bu dee ci muuru jant nag moom sunna gu dëgër gi moom maase nañ ci ba tax mu ubbi ko ne wa salaatul xusuuf jullit muur sunnatun sunna la waajibat suñu suñu feddle ida xusifat ndem muureef na asam su jant ba xaraja génn al imaamu ilimaan ba ilal masjid jëm ci jàkka ja faaf tataxate mu tàmbali asalaata julli ga binnaa si ànd ak nit ña bi xayri azaanin ci lu dul nodd wala iqaamatin du caageen liqaam nee na saa yu jant bi muuroo rek ilimaan day génn ànd ak mbooloo mi bu demee ci jàkka ja julli nag julli gi julli muuru jant moom nag amul nodd amul liqaam ndax ndegam du farata moom nodd liqaam farata rek ko koy am su ma xaraa topp mu jàng xiraatan am njàng tawilatan muy aji yàgg siran ci yalu bi naxwi suuratil baqarati ci lu mel ne saaru baqara su ma yar kafa topp dana rokoo rokoo ab rokoo tawilan bi aji yàgg naxwu zaalika lu nuroog loolee mooy lu tolloog loolee su ma yar fa ma topp dana yëkkati rasahu boppam yaqul di wax samihallahu liman xamidah nee na bu kàbbaree dañoo sopp mu jàng njàng mu yàgg-yàgg te kon mën na su jeexalee fatiha mu teg ca saaru baqara te gis nga ne saaru baqara jege na juróomi isib bu saaru baqara jeexee mu rukoo rukoo bu yàgg ba yàggee ne ba muy jàng saaru baqara wax dañoo bëgg rek rukoo bu nekk xaw a tolloon teg taxawaay ba ko jiitoon benn ràkk bu ne nag day am ñaari njàng ak ñaari rukoo fi toll ni lim defagul mooy jàng fatiha teg ca saaru baqara gis nga ni mu guddee jàpp ci boobu yàgg ca lool mel ne ba muy jàng saaru baqara ci yàggaay bu siggi nag wax sami xalaaw liman xamida
xam nga loolu bu ko mësaa def daan jàll sujjoo tey nag moom day tàmbaliwaat njàngaan njàng mu yees mooy su ma yàqaraw topp dana jàng doon xiraat yi lu yees njàngam ma al ula ma njëkk su ma yarkaxu topp dana rokoo ndax wa xiraat yi nuróom njàngam ma al taaniyat may aji ñaareel su ma yarfaxu topp dana yëkkati rasaxoo boppam yàqulu di wax samihallahu liman xamida gis nga noonu ba mu rukoo rukoo bu yàgg ba ba siggi ba taxaw jonn ba wax samihallahu liman xamida day jàngaat fatiha ba fatikuwaat nag jàng suuratu ali imran bu ali imran jeexee nag mu sëgg jàpp ci moom ya te na yàgg ca jàpp ci moom ya mel ne ba muy jàng rek na mel ci yàggaay mel ne ba muy jàng suuratu ali imran bu ko defee nag bu siggee wax samihallahu liman hamida nag door a jàll sujjóot ñaari sujjóot ñi moo tax mu ne suma yeex judi topp dana sujjóot sajida tey ni ñaari sujjóot taam ma tey ni aji mat ndegam nag léegi rakk bi am na ñaari taxawaay ak ñaari rukkoo day jàll nag léegi sujjóot ñaari sujjóot dañoo wute ci day yàggal ñaari sujjóot ña nam yàggale rukkoo ya wala déedéet wax ji gën a wóor mooy waaw day yàggal ba tey sujjóot ya nam yàggale woon rukkoo ya loolu nag kon xam nga dana xaw a yàgg benn rakk doom gis na ko dana yàgg lool su boobaa am na benn rakka suma yàqoo mu topp dana jóg fa yàq raw te muy jàng duuna xiraat yi lu yées njàngam ma ëllët yi ma nga xam ne te li dana sa soog daalika loolee su ma yarkaxu topp dana rukoo ndax wa xiraat yi nuróom njàngam ma su ma yarfaxu topp dana siggi kama zakar naa nan tudde woon maanaam bu jógee ba taxaw ci ràkkab ñaareel day jàng fatiha teg ci njàng mu yàgg mel ne xam nga ali ibrahima la mujj jàng kon na ca teg sóoratu nisaa yi kon bu taxawee ràkkab ñaareel gannaaw bu jàngee fatiha na jàng sóoratu nisaa yi bu sóoratu nisaa yi jeexee mu sëgguru ko te yàgg ci rukoo mel ne bi muy jàng sóoratu nisaa yi bu siggee wax sami xalaaw liman xamida tàmbaliwaat njàng mu yees nag xam ne léegi di daal jàngaat fatiha teg ci sóoratu maayida ci li sës ci sóoratu nisaa yi su maayida jeexee nag mu sëgguru ko te yàgg ci rukoo mel ne ba muy jàng maayida bu siggee wax sami xalaaw liman xamida nag door a jàll sujooti te bu demee ci sujjóot yi mu yàgg ca mel ni rukkoo yi weesu léegi moom la jàll di wax naa su ma yaqaroo topp dana jàng duun xiraati yi lu yees njàngam ma xaati yi mile su ma yarkaxu topp dana rukkoo ndax wa daalika lu nuroog loolee su ma yarfaxu topp dana yëkkati rasahu boppam kama dakar naa nan tudde woon summa yasjudu topp dana sujjóot ba tey kama dakar naa nan tudde woon summa yatashahadu topp dana taaye wa yusallimu te muy salmal kon rakab ñaareel ba nu mu defee woon ci bu njëkk ba rek lay defee benn rakk bu ne day am ñaari taxawaay yu yàgg ak ñaari rukkoo yu yàgg ak ñaari sujjóot yu yàgg noonu bu ko defee muy ñaari rakk bu taayu sëlma loolu mooy jullit muuru jant su jant ba muri ko baax na su muri ko wutit moom bu julli gi jeexee rek moom mu noppi ca wali man ñeel na koo xam ne caa bëgg na añ yu sall ya mu julli fii bayti hii ci ab néegam mis la taalika kem loolee añ yaf xala mu def ko maanaam jullit muuru jant moom daañu ko def ci mbooloo daañu ko def ci benn benn kon nee na kum neex nga defe ko ci sa néeg te defe ko nii ñu ko waxee. waaye nag dañ cee seetluwaale ba muy muuru fekk muy waxtu dagana naafila waaye waaye ba muy tàmbalee fenk rek bu daleen di muuru nga xam ne kon naafila daa araam yooyu jamono kenn du julleegun dañuy bàyyi ba tey bu fekkoon ne daa muuru. gannaaw tisbaar nga xam ne fekk waxtu naafila wéy na ana waxtu yoor yoor wéy na ba tey kon kenn du julli kon daal diggante waxtu yi naafila dagane mi bu jant bi fenkee ba yëkkatiku ñetti meetar dañu tàmbalee ba tisbaar daal bu jant bi muuroo foofu kon foofu la ñuy julli waaye waxtu dëgganut naafila mbaa fekk tisbaar jot ba jàll nga xam ne waxtu yoor yoor jeex na bu muuroo itam kenn du julli walaysa fi salaati xusuufil xamari nit muy nekk ci julli muuru weer jamaaxatu mbooloo wal yu sal yu na julli annaas nit ña inda daalika fa loolee af zazan mbir mu ñu ay benn benn nee na julli muuru weer nag moom bëgguñu ca mbooloo dañoo bëgg rek bu weer yi muuroo kenn ku ne beru tàmbalee julli sa julli bopp te julli ga moom amul aw melo na ngay baaxoon naafila rek ngay def di julli ay ñaar ñaari rakka loo ci jàng rek baax na ba kera ngay sonn mbaa weer yi muuriku rek waaye amul yemukaay moom daal bu jógee ne weer yi muuru na na kenn ku nekk tàmbalee julli sa bopp ay rakk ñaar ñaar di naafile naafile bu weeri muri ko mbaa nga sonn bàyyi rek wal xiraatu njàng ma fiihaa ci moom jëxëra nekk na ci biral kasaa'iri rukkooxi nawaafil niki mboolem julli naafile yi mu ne na mu dëgg moom weer guddi lay ñëw bu dee muuru bu dul muuru ñoo ci moom guddi la baaxoo ñëw te naafile guddi dañoo sopp ku ko biral moo tax kon booy julli julli muuru weer dañoo sopp nga di ko biral di ko wax ci kaw walaysa fi isri salaati xusuufi shamsi diir mi nekk ci gannaaw jullit muuru jant xutbatun xutba murattabatun bëri biñu toftale wala ba asawaay ayut nag ay yaxida mu waar annaasa nit ña wa yudakkirahum tam leen di fàttali yàlla nee na jullit muuru jant nag moom gannaaw buñ ko jullee ba noppi amul xutba bu ñu wax naa ndax xutba da nga waxoon ci xiit déedéet moom amul xutba waaye teewul nag ilimaan ji mën naa waar mbooloo mi fàttali leen yàlla rek waaye amul na xutba boo xam ne da ngay toog ci njëlbeen nga bu xaajee nga toog ci digg ba dellu jugaat motliwaat da nga waxoon ci xutba ci mel ni korite ak tabaski mu amu ko baabul di ëbbant la fii salaatil istisqa yi ci julli mbaaw julli mbaaw mooy bu ñu yittewoo ndox moo xam ci mbay mi la moo xam ngir naana tax waaye moom daal bu ñu yittewoo ndox rek la ñuy julli julli gi ndax sàkku ci yàlla mu xéewale ndox wa salaatul istisqa yi julli mbaaw sunnatum sunna la tuqaamu sos def na ko taxawal yaxruju dana génn laxaa ngir moom al imaamu ilimaan ba kama yaxruju nag mi génne lil xiidee ni ñeel yaari xiid ya daxwatan ci ab yor yor fa yu salli tamuy julli binnaasi ak nit ña rakk xatay ni ñaari rakka yejji xaru dana biral fii himaa ci ñoom ñaar bil xiraati ci njàng ma yaqraw day jàng bi sabbi hisma rabbikal ahla ci sabbi hisma rabbikal ahla wa shamsi wa duhaaha ak wa shamsi wa duhaaha wa fii kulli rakxat nekk na ci bépp rakka sajdataan ñaari sujjóot wa rakxatun akub rokoo waaxidatun bu di benn wayata shahru tamit taaye wayu sallimu tamit salmal jullit baaw moom nee na daa xaw a nuróon teeg jullit korite tabaski ndax yoor yoor lañu koy def te it ñaari rakk la te dañ koy biral te taamu nañ ca ilimaan bu jàngee ci rakk bu njëkk ba faatiha mu teg ci sabbisma rabbika rakkam ñaareel bu jàngee faatiha mu teg ci wasam si wa duhaaha nam doone woon ca korite tabaski li wutee nag mooy kàbbar yi nga xam ne moom la julli korite tabaski di am moom kàbbar yooyu ngay baamu ci benn rakk bi boo taxawee yooyu mu amu ko moom kàbbar yi nga mënoon ci julli rek naka njëkk moom la am doo ci yokk dara rakk bu ne benn rukoo lay am ak ñaari sujjóot rek nañ ko miné woon su may saqbil sopp dana jublu annaasa nit ña bi wàcc yi ci kanamam fa yajlis tamit toog jël satan ak toog fa isat ma ànd na ndéem dal na ànd naa su nit ña xaama mu jóg mu tawakki ak mbir mu muy aju sukkandiku xalaa xaw sin ci xala aw xasan wala aw yat fa xataba te mu xutba suma jël sa toog mu toog suma xaama toog mu jóg fa xataba te mu xutba nee na bu jullee bu sëlmal day wëlbatiku jàkkaarloo mbooloo mi foofu nag moom du am minbar ndax dañoo bëgg ñu toroxlu ñu woyoflu bu taxaw fi suuf rek noonu bañ a taxaw ci kaw minbar te jàkkaarloo mbooloo mi rek bàyyi ba mbooloo mi def tekk nag toog door a jóg nag tàmbalee xutba na nga meloon ci xutba rek mooy balaa tàmbali xutba bi day toog bu xutba bi xaajee mu dellu toogaat door a jóg motliwaat mooy na nga meloon ci xutba rek noonu lañ ci sopp ba tey noonu la koy defee fii fa isaa faraxa ndeem noppi na istaqbala mu jublu al xiblata xibla fa xawala te mu wëlbati ridaa axoo làmbaayam yéen xam day def maa la nga xam ne xalaa man kii bi nekkoon na ci kaw mbagam ak ay mani may ndeyjoor xal ay sëri ci càmmooñ ba wa maa la nga xam ne xal ay sëri nekk na ci càmmooñ ba mu def ko xal ay mani ci ndeyjoor ba wala yaqli bu te du jat mooy te du wëlbati daalika loolee gannaaw bu xutbaa ba noppi daal dañoo bëgg mu wëlbati ku jubluwaat xibla ndax xam nga bi ñu xutba dafa doon jàkkaarloo mbooloo mi te wëlbati ku nag lay jublu xibla nag wëlbati làmbaayam la nekkoon ca bëggum ndeyjoor mu yóbbu ko ca moom càmmoñ la nekkoon ca moom càmmoñ mu wëlbati ko andi ko ci moom day joor te du tey cat yi moom cat la féete woon suuf ba tey day féete suuf cat la féete woon kaw ba tey féete kaw loolu jublu ci wala yàqali bu te du wëlbati mooy te du jat daalika loolee loolu yomb na ndax làmbaay gi mu lay wax nii moom ñoom booba maanaam xam nga mel ne tey boo dee aj rek gis nga làmbaay gi nga yor danga koy laxaaroo mel ni am mbalaan rek noonu lay mel lu mel noonu nag kon la nekkoon ca bëggum ndeyjoor nga yóbbu ko ci moom càmmoñ la nekkoon ci moom càmmoñ nga andi ko ci moom ndeyjoor te du tey cat ya moom cat la féeti woon suuf ba tey féeti suuf la féeti woon kaw ba tey féeti kaw dina yomb moo tax mën naa wala yàq du daalika du jat du jat mooy cat yi moom na bàyyi rek cat la féete woon suuf féete suuf la féete woon kaw féete kaw noonu ñu wëlbatee lambaay gi dañ ci gaat nga rek yàlla génne leen ci bekkoor beeg tiis yi te andi leen xéewal ak naataange wala ñu gaat nga ci noonu ñu wëlbatee lambaay gi ndax xam teewul nag bu fekkee ne kaala nga yor tam mbaa sarbet tam mënees na ko def noonu waaye yafal na def annaasu nit ña mislahoo kem moom waxuma te moom ci boppam xaa imun aji taxaw la waxum te mbir moom ñoom toxoon way toog lañu noone mu def na wëlbati làmbaay moom ilimaan ba tey na mbooloo mu def noonu kenn ku ci nekk sag làmbaay nga wëlbati ko la fi nekkoon ci ndeyjoor nga yóbbu ko càmmoñ la nekkoon càmmoñ nga indi ko ndeyjoor te bàyyi cat yi nag moom nañ defoon rek cat la féete woon suuf na féete suuf ba tey la féete woon kaw na féete kaw ba tey ilimaan bu koy def moom day taxaw nit ñi buñ koy def moom dañuy toog moom day taxaw di ñaan jublu xibla te mbooloo mi ñu koy def ñoom toog moom rek mooy taxaw ko dee ni ñu wëlbatee nag lambaayam ñoom it noonu la ñu wëlbatee seen lambaay su ma yeddoxoo topp dana ñaan ka daalika naka noone su ma yan sarifu topp dana wëlbatiku waaye yan sarifoo ne te ñu wëlbatiku wëlbatiku mooy ñibbi rek dellu ci kër ga day wane ne suñu defee noonu ba ñaan ba noppi rek